man kura Gaye laa tudd kura ngi dekk fi keur Mama Laaji wa febar bi bi may dal booba man bépp sénégalais bo xamanteni da nga am jafe-jafe ci Mali Tamba ba Mali ma ma ma koy lijeenti wa bo faato may indi koor yi bo accidenté ma lay fajj ba nga tané loo bëgg rek dina la ko défal bu la prison dina def la tuuba nga gëndu do fanaan mu kasu lol la laa doon liggéey ca Mali ma ngi won Mali waa góor a xuma laa doon liggéeyal accident de travail laa def waaw. alors euh, tànk bi ñu koy amputé da nga jóge woon Mali euh, tànk bi lakk ci ambulance bi ñu bëgg nga nettali loolu nu mu demee. waa tànk bi bi muy lakk booba waa jige côté Tiwaawan lañ dëkk Tiwaawan gii lañ dëkk jige Tiwaawan ñoom mot 6 chauffeur bi ñuy wax mot siis ak apprenti ñoo faatu oto bi daanu seen kaw. ñu woo ma ay 4 heures du matin commandant brigade bi woo ma wax ma ko ma taal sama oto dem ba foofu mënu ma leen a ma daw ci benn village woo waa village bi ñoo ñu fexee ba oto bi jóg ma def la tout ba lieu ambulance 450 000 laa ko fay jéema ba Kidira ma indi koor bi ma ñëwee indi koor yi weeru koor la woon ma indi kooru daaw ma indi koor yi bi ma indee koor yi damaa daw wàññeekuwaat ñibbi Mali jox seen mbokk koor yi parce que dama leen woo woon pour ñu tase ko Kidira Kidira laa leen joxe koor yi da wàññeekuwaat parce que koor bi bu génnee ba Kidira mën nañ maa créer problème Diboli laa yemale ñaari koor yi ñu jël si ko foofu yóbbu Tiwaawan su robi leen waaw léegi bi ma wàññeekoo ñibbi Mali ci laa gis sama tànk bi fut man sax maa ko tojal sama bopp parce que boobu tàngaay sama yaram sonn naa bi ma ko tojee sa suba ga mu neewi ñépp naa ma sa tànk bi daa neewi waaye man jàppee ma ko dara taxul ma dem liggéeyi am benn chauffeur bi ñu arrêté woon ma dem di ko faj lijjanti bu ma ko lijjantee ba waññee ko bi ma ñëwee la ma daane crise ma woo góor xuma okk ko mu ne ma kon ñëwal senegal mu ñëw senegal comme tey jii bisu tey bii bi mu desee tey tey la anniversaire am maam at sama feebar waaw ma bi ma ñëwee nag ci la loolu am ma ñëw ñu amputé sama tànk ma jël cabine 2 fii ci Saint-Jean de Dieu bu Thiès fay naa 2 millions 340 mille waaw bi ma ba tay ji ni benen bi ni fi nek leneen dañ koy amputé wa parce que nee jabet da ci feeñ té loolu bi ma ko xamee yagul yàggul sonn trop sama yaram bi yëpp dafa neewi sama yaram bi yëpp dafa neewi wéni da daa bi yëpp tànk yi yëpp dafa sama bët dafa lëndëm waaw ci loolu laa nekk. ci loolu nga léegi da ngay euh, ñaan dimbal ci biiru Sénégal ak yi ni mel ci li nga xam rek nekk nattu dal la. waaw Macky Sall de maa ngi koy ñaan ndimbal ndax yàgg naa kaa topp man lañ daan wax yaay taalibe yi Tamba man maa nekkoon yaay taalibe yi Tamba yore woon naa juróom-ñetti daara yoo xam ne Issa Mbaye Sam mii nelaw tey moo leen daan duddal ak waa Junkoore ñi seen xel yi naqari waaw. yore woon naa ko Tamba di ci liggéey di ci jaamu yàlla xale bu tuuti soxlawu ma dara loolu rek laa soxla woon Macky dama ko daan topp ba ne ne Facha parce que dama kaa bëggoon bëgg ko ba tey ma bëgg ko di ko politique fu ma nekk ginnaaw yàlla moom moo ñu fa yokk jom mba ci Mali gii ma nekkoon moom ma fa yokk jom may liggéey di dimbali ay néew di doole te yàlla tax waaw. alors tey ku la bëgg a jàppale ci ban téléphone lay jaar ci ban numéro.

moo may taxaw moo may jëndal ordonnance ak ku ñuy wax Sarr Thiès info moo may jàppale boole ak ñii ñii bu def ba comme ku mu bokkal nday ak bàyyi sonn naa torop sama tànk yi daa néew sama yaram yëpp néew Marème fay Sall maa ngi koy woo mu ñëw jàppale yaay jaboot bi ndax lu ñuy def tey yàlla ak moom a tax waa ba nattu dal ñu ci suñu yaay ji li nga jot a wax dafa daw sama yaram waaw parce nit ku nekk nit nga te nit ku nekk ci suuf la yu mujj waaw te wax ji sëñ Saliou Mbacké daan wax rek la waxaat biiru bàmmeel loo fa deful doo ko fa fekk waaw damay ñaan li ma jot expliqué dafa leer nañu te tey jii ci solidarité ñun ay ndaw lañ amuñu dara waaye wallaahi yàlla xam na ni ku nekk ci ñun ñu taxaw fii muy xaadim di guuba di Moustapha di Pape di ba ci yow mi Omar wala aada ku amoon tey lu ko faj moom ko bil fi yegsi waaye suñu borom moo matal yow mbir noonu ndax séddale yemul ndax bu séddale yemoon ñuy gedd bosam moo tax dañuy ñaan li lay war a subi di ko dalee ci président de la république mi nga xam ni moo njaboote ñëpp ci soxnaam soxna Marième Faye Sall mi nga xam ne moom tamit ndey ji cheikh la li nga xam ne dafa tëddee njaaxaanaay dañu koy ñaan war a rasuli ci barke cheikhul ramadan bii ñu nekk mu jàppale suñu yaay ji jàppale suñu maman bii mu jóg ci lii ndax doon def te yàlla tax ba yàlla dogal tey ndog ndog fekk ko ci du weesu nag waaye nag dañuy ñaan yàlla rek ku ci mën a jàpp billaahi wa rasul nga jàppale suñu moment bii waaw ci ca euh, solidarité mi nga xam ne ñoo ñëw pour def vidéo bi xëy pour taxaw te yàlla rek tax ak sa jëmm ji Omar mi nga xam ne taxawaay bi nga xam ne def nga ko ci te suñu yaay ji tudd ko léegi waaw aucun effort n'est vain nag loolu la olof di wax loolu la di wax dañuy ñaan nag am yi nga xam ce sont des âmes sensibles ñu jàppale soxna si waaw parce que alal moom boo ci lekkul naanoo ci saraxe woo te du la jariñ dara. Euh, Boubacar Diarra chargé de communication bu euh, Thiès solidarité di dox ci wàllu social ci biir Thiès euh, tey bëri na ay cas yoo xam ne ci yéen am saafara tey ñu ngi ci kaw Koura Gaye tey la ngay àddu. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ziar ñëpp mm. di baalu ñëpp ak di ñaanal suñu yaay ji nga xamanteni ñoo ngi tok si wetam kaddu gi du sori ndax mo wax na lepp te lu mu wax début ba fin so xolé suñu yaay ji xamanteni mom sosial nitu social mais nitu social bu doon def social ba suñu borom tek ko nat muy feebar mu jël alarm def si ba tay ji muy wut ndimbal ñoo ngi ñaan fii si biir Sénégal fi ñu nek képp ku gis sunu yaay ji donte deureum la nga jël def ko si ci bisu weeru koor bi si weeru koor gi di nek yalla nak suñu sunu borom fay. Euh, dañ na nak bay seewewu tank ndax ñun dañu nek ay ndaw yo xamantene nek caisse solidarité mu am ay kilifa yo xamantene yalla wërsegal leen ci alal xeyna ko ñom du càggan dañu ma ñak baña def mais dañu dañu xamul ndax seen activité ba tax na ñun seen doom ñun seen jarbat ñun seen i ño takku di wër di xol ñu nga xamne am nañu jafe-jafe pour jaayante ak loolu ñom ñu gis ko pour jël seen alal def seen ngir am ci suñu borom ndax sama frère bi légui wax nako lo fi liggéey rek la dang kay fem fekk ci fofu te fofay kër deug kon maa ngi interpellé di wo sunu papa sunu mak sunu nijaay sunu lepp muy Omar Diop mu nga xamantene mo nga dekk fi ci kër Maam El Hadj xëy mais du nit bo xamantene day yekte te def kon ñong ko si wo si di wo seen bu njëgën di ko wo mo tamni xëy da yegul waye nit kuy def la di ko ñaan ñom ñu ñew fekk ci ñu ci li waye nak comme dañu nekk sénégalais te am njiit muy président de la république gardien de la constitution mu nga xamante ne tey jii ku bañ ak ku nangu moom la yàlla jiital mu nekk njiitu Sénégal kon moom ñoo ngi ko ci ñaan moo soxnaam ñu gis vidéo bi te jàppale soxna si jàppale ko seen bopp la ñu jàppale jàppale ko askan bi la jàppale sama kàddu bu mujj maa ngi sant yàlla bu baax ginnaaw yàlla ba mu ñu defee ay jullit ñuy wër di xool ñu nga xamante ne dañaa tawat pour defal leen lii pour ñu jàppale leen naam mun nañaa dal ñun ndax dund gu jeexul rek lu nekk xëj na si waaye nag dañ na ku def lu baax am lu baax ku def lu rëy it am lu rëy te lii nii nii nii nii caisse solidarité di doxee ànd ko caisse info Omar kes info il faut ma arrêté foofu tuuti parce que li nga social du génné ci sa poste rek joxe lolou du social so xolé nu ñu toggee sama wét sama yaay ji lér na ma lu mu sentir tay gëj na ka sentir ci fiix kon nañuy jégué askan bi di bayyi alalu aduna tuuti di xol ñun dikënté nit ak nit lan lañu mëna a té kess info mo ngay def wax dëgg yalla ci wéru koor gi ñëpp ngi def ndogu koor di ci def ay millions mais ñun suñu ndogu bi ñuy def dafa am solo de li ñuy def yalla nga ci am directement parce que ku sauver doomu adama wax deug yalla ah lu suñu borom wax xam nañ ko kon yalla nañ yalla defal jàmm suñu and ak caisse Info it dañuy remercier directeur bi ndax and say logistique auto gasoil euh, courant matériel bi lepp dem ce site monter ko dugal ko gratuit pour nit ñi am jamm mais né caisse Info kon euh, dafa jara a wax kon ñoo nga xamal président de la république di xamal sénégalais yépp ne Info ñoo ngi def solidarité Info ñoo ngi jàppale askan bi te loolu la ñuy de presse loolu ñuy la ñuy bëgg pour ëllëg Sénégal mun ci am jàmm te jàmm Sénégal mooy suñu jàmm am na def Mali am na ko dem France gis xale bu nga xamante ne moo ngi waaj a daanu mu yéeg sauvé ko mais lan moo tax suñu borom ko ba mu sauvé ko mooy pas-pas ak ngëm-ngëm kon ñun lii ñuy def nii mok looloo yem kekk pas pas-pas ak ngëm-ngëm lañu ñu am suñu yaay ji yàlla na yàlla def nit ñi dégguñu te àddu yàlla na yàlla def ku ci dugal sa dërëm dërëm boobu sa balaa muy egg si ñaar dërëm mu faju te wér te delluwaat si sogom delluwaat si social am ndax ku baax la numéro téléphone bi caisse solidarité 77 la 562 98 92 562 98 92 numéro boobu ku si woote di jot ku nga xamante ne moom la ñu jiital ci caisse solidarité koo xamante ne tey jii maanaam dama ne sax ñun ah dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér parce que xale goo xamante ne ay nit la jiital ne la yaa ñu jiitu soxla woo ci dara dul foo gisee nit ku nga xam ne am na jafe-jafe nga faj ko te Umar naa la wax lu yéeme si Xadim Samb tey ci ngoon rek am na social bu mu def boo xamante ne dakaa def te kenn yëgu ko kon Xadim dañ lay remercier lii nag ñi la jiital du ñun yàlla moo la jiital kon lu nga mérito la yàlla nañ yàlla defal suñu kuréel gi mu jëm si kanam ñu bañ naa ko voilà kon mbokk euh, jul bi ñuy seetaan ci Thiès Info ak euh, Thiès TV mu nekk rek kàddu euh, am solo parce que xoolee soxna si si li mu doon def ci wàllu social dunde ko depuis ay ati at ba yàlla yeggale ko fii te yàlla teg ko bii nattu mu nekk loo xamante ne askan bi yëpp la metti ba ñëpp rek ku nekk ñu yuuxu wàllu. pour ku nekk ñëw rek mun koo wallu parce que nekk na koo xamante ne ñëpp gis nañu taxawaayam seede yi nga xam ne yëkkati na ko ak sax kilifa yi nga xam ne def nañ ay témoignage ci moom ca Mali ba fii di procureur bu Mali ñoom ñëpp amul kenn koo xam ne rek waxoo taxawaayu Koura Gaye ci biir euh, Mali mu ko doon wallu li nga xam ne rek moom mooy sénégalais yi tey nag Koura moom moo soxla Euh, soxla gi mu soxla mooy tey li nga xam ne dab na ko muy feebar tey ay cëram ñu ngi koy dagg mu nekk loo xamante ne jafe-jafe la mu nekk métti ci biir xolam amul kenn ku dul askan bi amul kenn ku dul jullit yi ndaxte ci la bokk ba tax na hôpital boobu sax muy fajoo di 5 ans léegi dañuy gis ay labbe sax di jël seen alal pour jàppale ko pour mu faju loolu ñun ay témoin lañ ci ñu gis ni mu nekk loo xamante ne tey euh, nekk na cas boo xam ne kaabu bu la tey moo tax ñu mobiliser suñuy moyens mobiliser suñuy nit parce que Thiès Solidarité fondation la boo xam ne ñun ñëpp ci bokk di ci dem di ci wax parce que cas yu mel nii moo tax parce que ku nekk rek mënoo taxaw di xool li xew di xool fa muy xewee ak fa muy amee mais am na ñoo xam ne ku nekk boo defee sa cër rek ñëpp jot ko nga xam ne ñoom ñoo war a def seen euh, alal pour saafara ko ñooñu yàlla suñu borom kese moo leen di fay Tidiane nag tey pour la première fois ma intervenir nii di ci gërëm bu baax suñu directeur Oumar Sey Latir bu Thiès Info. parce que bu ñuy xool lépp loo xam ne ay cas social la. ci biir Thiès ñu koy jëli amu ci benn yoon rek boo xam ne. am na ci sikk sàkk fu ma ko ne kar léeg sax duma ko tàggu damay dem def sama liggéey ba pare dem sama yoon bu ñëwee du koy gis moom mooy jël ay textam titre ko def ci def ci liggéey boobu nag mu koy def di ci ànd ak personnel technique rek rédaction bi ak lépp ñun waa Thiès Info dañuy dellu ci weeru koor gi parce que lii jaamu yàlla gënu koo màgg jaamu yàlla gënu koo rëy parce que tey ku ci nekk ñun rek am nga mbokk moo xamante ne xëy na mu ngi si ay jafe mais nëpp ni nga ciy war a taxawoo rek mooy ñi nga xam ne moom la taxawee ci Koura Gaye kon nag Coura mbiram mbiru Sénégal la mbiru waa la kon na si waa Thiès yëpp jàpp muy pouvoir di opposition di chef religieux di ñëpp woo nañ ci ñëpp du ñu lim kenn waaye woo nañ ñëpp képp rek koo xam ne gis nga ni lii war nga see def sa dërëm ngir am ngërëmal suñu borom ngir am ngërëmal suñuy jur yàlla na la yàlla gindi ba nga dugal sa dërëm ngir kure mi mën a retrouver encore li nga xam ne rek moom mooy taxawaayam ci biir askan wi